naka nu ku yor wàllu wërgu yaram ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr wàllum jënd ak njaay di Aminata Assome Diatta wàllub napp gi ak koom-koom gi tukkee ci géej gi wàllub formation professionnelle wàllub ndox mi ak assainissement ci gàttal daal jëruñ yi nga xamante ne kon seen ministère moo nekk ci actualité jamono ji actualité bi source a gis ni kon bokk na ci immigration clandestine bi ñàkkum ndox mi ci gox yu bëri ci ndakaaru ak li ko wër feebar bi lëmbee nappkat yi rawatina ñi nekk ca caaro yi ay licence de pêche yu ñu xaatim ak biti réew crise bi juddu ci suukar si wàllub chômage bi campagne njaayum gerte gi loolu yëpp tax ba source a di sàkku ci gouvernement bi ñu bañ a indil askan wi ay waxi kasaw-kasaw ndax dëgg la nit ñi di xaar ci les poñ yëpp lu kenn xaaritoon ci diggante maître musa jopp ak Barthélémy Diaz am na lii quotidien di xam ne ni kon njiital pastef bi di Ousmane Sonko moo jubóole socialiste bi ak ki nga xamante ne kon mooy njiital Dakar dem dikk ba woon Vox Populi di ñu xamal ci mbir mi ni Sonko ci boppam moo daal di jubóole maître Moussa Diop ak Barthélémy Diaz te waxtaan wi doon xewee ci kër njiital pastef bi suñu naataango yi di xam ne ni kon moom maître Moussa Diop mi nga xamante ne léegi opposition bi la fekki naka noone Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz ci waajal ab coalition la ñu nekk Macky Sall li muy waajal bokk na ci toxalaat élection locale yu ñu dëgmal l'observateur di xam ne ni li mu nas yëpp ni ay alliance politique mënees nañ ci njort ni kon élection yooye ci boppam la ñu war a toxal boo moyul ba octobre 2021 yéene kaay groupe Futur Média bi yamu ca mu gis ni kon boo moytul lu toll ci benn million ni ay électeurs yu bees ko yokk ci fichier bi suñu naataango xam ne ni kon opposition bi nag ci lajj gu métti la war a jublu bu fekkente ne ni adduñu ci mbir mi ñi doon gaaw a addu di layal Macky Sall léegi ci patt pataral gu métti la ñu nekk ci ab jàngat biñ ci def source a limal ñu ci tur Moustapha siselo yu Youssou Touré ak ñeneen ñi nga xamante ne bu yàggul dara ñoo doon taxaw njiitu réew mi di ko layal waaye mu mel ni léegi ay muuma la ñu Sud Quotidien fël ci ab jàngat bi nga xamante ne def na ko ci wàllu politique ak li Macky Sall doon waajal ni kon dajaleaat famille libérale bi te loolee mujjuta antu li ko kaay groupe sud communication bi dénk kàddu Ibrahima Bakhoum di ab journaliste formateur mi nga xamante ne li mu gis bokk na ci kon reconstitution famille libérale boobee mëne suñu ko def te metre Wade du ca bokk docteur Mamar Thiam spécialiste ci wàllub jokko ci politique di ko feelu gis ni retrouvaille famille libérale yooyee à la kuliyali moom maître Wade faaw mu bokk ca lu ko mooy moom amu ci benn pexe bi nga xamante ne dina tax mu antu ñiy wutali réewu tugal di ko jarale ci mbëkk mi te du antu 24 heures ci la xëy def ab jàngat mu duppee ko sax ni ab njaay bi nga xamante ne lu bëri ci ay faat bakkan lay mujj yéenekaay bi yamul rek ci wàllu mbëkk mi wax na ci li koy faral di indi bokk na ci ñàkkub jën bi nga xamante ne tàmbal nañ ko nemmeeku ci waaxub Sénégal yi ba tax ñi di nappkat yi ak yeneen ndaw di wutali réew tugal waaye tamit licence napp yi nga xamante ne kon état bi da koy jaay te du ko teg ci yoon loolu yëpp bokk ci li tax ba ndaw ñi amatuñu yaakaar di jaar ci géej gi di wutali Espagne ñi fa doon jaar di wutali Espagne bokk na ci ndaw gi di dudu nga xamante ne ab dossier mu ngi ci yoon ba léegi libération dañu xam ne ni kon tey ji la war a janoo ak attekat yi yéenekaay bi di xam ne ni kon dañu ko war a atte moom ak yeneen ñaari père de famille nga xamante ne kon danoo jëloon seeni doom di ay ndaw dugal leen ci gaal gi ñu dugg ci gaal gi ba yegg Europe ñooñee mu mel ni am na beneen doxalin bu ñu gis ni dañ koy def ci ñoom rawatina ca France Dakar Times mi jot benn ci ay document bu ministère de l'intérieur ci réewum France gis ni kon yooyu leen ndaw bokk na ci sax ay mineur dafa mel ni France waajaloon nañu mbir mi ndax léegi ci politique bu ñu nekk mooy fexe ba utal leen xëy daal di leen former tamit loolee mu mel ni wuute na lool ak déclaration yi nga xamante ne kilifa yi nekk ci réew tugal dañu koy faral di yëkkati di ŋàññi immigration clandestine boobu L'As Quotidien dikk ak ñun tey ci ab dossier bi nga xamante ne def na ko ci soxna yi nga xamante ne dañuy wan lor te duñu ko gaaw a xam mu koy méngalee ni ab phénomène bi nga xamante ne jaaxal na lool askan wi ndax am na kenn ci soxna yi nga xamante ne ci semaine bi mu xam ni kon wan na lor semaine boobee ci boppam la mu mbir bu doy waar FC Barcelone ak Juventus ci huitième de la ñu jëm stade quotidien moo ni jàngate enjeu ñuy xaar ci ñeenteelu bëccëg Ligue des champions niki tey jii wax na tamit ci clubu Idrissa Gana Gueye bi di Paris Saint-Germain nga xamante ne ci ab danger dëgg la nekk niki tey jii ñu ciy xaar ci yile jongante ab choc diggante ñaari gardien yu Sénégal di Edouard Mendy ak Chelsea waaye tamit Alfred Gomis bu ren muy jàkkaarloo yu tàng diggante ñaari sénégalais yooyu li war a tàng kay mooy jàkkaarloo diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu ngiy xaar seen face à face niki ci ebis bi nekk mu war a nekk gulat ñaari mbëri di daje gannaaw mbapat bi